ala alihi xaqa qadrihi wa miqdaarihi al-aziim wa radiya allahu an cheikh tijaani wa man bihi tawassala min qaasin wa min daani wa an abil xasan al-haydari Sakho Ali xalifati cheikh fi sirrin wa i'laani ñu ngi fas yéene ànd ak yéen mbokk yu tedd yi tàbbi ci suñu ñaar fukkeelu darsu ak ñeent ci taaliq bi ñuy jéem ci téere bu mag bi di jawahirul maani wa bulughul amaani fi faydi sayidi abil abbas tijaani radiallahu taala anhu xam ngeen ne weer wi ñu nekk di weeru shawal moo tombeek weer wi mawlana tijaani radiallahu anhu faatu woon ñaari fan ci gannaaw di fukki fan ak juróom ñaar ci weeri shawal ci la mawlana cheikhul xatm al katm qaddasallahu sirrahu wa radiya anhu dellu ca boromam yal na ñu ko yàlla boole fayal Seydi Harazim qaddasallahu sirrahu taxawoon ak ñun ci tukkim Cheikh Tidiane mu barkel moomule gannaaw bum ñu waxee mbiram ca barab yu sell yooyu mu jaar ci Jazaayir ak biir Maghrib gannaaw bum ñu tuddalee jàppam tariqal xalwatiya ci Seydi Mohamed bin Abdirahman al Azhari mi ngi ñun ci tàbbeem Tunus radiyallahu taala anhu nen wala ma daxala ba nga xamee ne dugg na Tunusa aama sittatin wa thamanina wa miatin wa alf atum junne ak téeméer ak juróom ñett fukk ak juróom benn mille cent quatre-vingt-six boobu mi ngi dund ci zaahir fanweeri at ak juróom-benn nee na ba mu tàbbee Tuunus ca at mooma laqiya baada lawliya ibiha tase na faak yenn waliyu ya fa nekk minhum bokk na ca ñoom alwaliyu shahiru waliyu bu siiw ba saaxibul qadril kabir boroom daraja ak dayo ju màgg ja sayidi abdussamad arraxawi wa kaana nekkoon na moom sayidi abdussamad nag taxta wilayati gayrihi ci suufu kilifteefu beneen waliyu wa huwa waliyu booba sax en effet xutubu tilka albaldati mooy xutbu dëkk boobe wa kaana moom sayidi abdussamad nekkoon na fi yi ci àndaaleeg waliyu booba rabia arbaatin ñeenteelu ñeenti ñi nga xam ne ñoom la daan dajeexal wala yulaquunahu te duñu dajeeg moom illaa layla ndere guddi ndere guddi li satrihi ngir nëbbu gim doon nëbbu ala xaalihi ci xaalam ña ngay dajeeg moom fii laylatil jumuati ci guddig ajjuma wa laylati lisnayni ak guddig altine qaala cheikh cheikh seydi ahmed tijaani radiallahu anhu nee na talabtu sàkku naa min sayidi abdisamad ci sayidi abdisamad mulaqaati mulaqaata wala mulaqaati mulaqaata aha mafaul bihi la mulaqata am tila mas mulaqata hadha sayidi mulaqati aha fi mulaqati waaye fii gi mën na cee ñàkk tamit daje sàkku naa ci moom daje ak sang bi le radiallahu anhu hada sayid radiallahu anhu famtanaa mu terewu mutaallilan di aji cillawu bi adami mulaqaati ahadin ci ñàkk daje kenn aslan ci cosaan maanaa wali yàlla boobu nga xam ne Mawlaay Abdou Samad dafa nekk ci suufu suufu euh, kilifteefam dafa bokkoon ci awliyaaw yi nga xam ne du ñu dajeeg jaamu yàlla yi ngir loolu la seen maqaama ak seen xaal atte moo tax bi ma waxee Seydi Abdou Samad man de bëggoon daje kilifa gi Seydi Abdou Samad ne ma moom nag du daje kenn waaye terewut Cheikh Tidiane radiallahu anhu soxla su mu amoon ci kookee Moulaye Abdou Samad la koy wax mu waxanteeg moom nee na fa bacaata lahu maxbuban maca saaxibihi bu dee ci kitaabul jaamic talabtuhu fi lmulaaqaati famtanaca wa bacatu lahu daata yawmin maxbuban maca saaxibihi jawaahir moo def talabtu min sayidi abdisamad mulaaqaata la waral waa mulaaqaata haada sayid bu dee ci jaamic Seydi Mishri mu ne talabtuhu fil mulaqaati sàkku naa dajeeg moom famtanaa wa bacathtu lahu ma yónnee ca moom zaata yawmin bés maxbuuban maxbuub maca saaxibihi ànd ak àndandoom ba ana luy loolu fa baata lahu mahbuban maa saaxibihi mahbub xeet la ci xeeti dinaar maanaam ma yónnee ca moom addiya jox ko saydi abdus samad mu joxal ma ko ziyaaral ma ko fa qaala lahu daaka al waliyu waliyu jooja wax abdus samad mu laay abdus samad ne ko al mahbubu baata mahbuban ku ñu sopp ki yónnee na lu ñu sopp maanaam mahbub wurus la xeet la ci wurus waaye ci arab lu muy firi mooy lu ñu sopp kon wane na foofu moom cofeel ki nga xam ne am na ko ci Cheikh Seydi Ahmed Tidiane radiallahu anhu dëgg-dëgg mooy yeey ndax mooy soppeeb xadara ba moo tax kum tasek rek mu bëgg ko bëgg gu xëpp dayo rawatina ñooñ yàlla dena fa aqaama sax na moom cheikh tidiane radiallahu anhu sanatan kaamilatan atum lëmm baaduha lenn at ma bi tunus ca tunus la ko passé wa baaduha lenn at bi madinati suusa ci dëkk bu ñuy wax suusa la ko passé fa dërësa mu jàngale bi tunusa ca tunus kitaab alxikami téeréeb alxikam muy alxikamu alataaiya libni ataaillahi sakandari qaddasa qaddasa llahu sirra téere bu Cheikh Tidiane fonkoon la téere Seydi bni ataaillahi sakandari nga xam ne ak imam Buusiri ñoo gënoon a ràññeeku ci taalibey Seydi Abul Abbas al Mursi mi nga xam ne moo doon xalifaab sayidi abul hasan ashadali mi nga xam ne moodon doon mbootam sayidi abdusalaam bin mashis sayidi abdusalaam bin mashis aha mu ne Cheikh Tidiane na jàngale ci Tuunus téere boobu alxikamul ataiya téere bu am solo la donc nga yëpp war nañ ko jàng mhm. am na sax translation ci làkk yu bari léegi wa xayruhu ak beneen ak budut boobu ci téere yi xam-xam yi fa arsala yónnee lawoo ci moom amirul baladi buuru dëkk ba yónnee sàkku an yuqiima Cheikh Tidiane sax dëkk indahu fa moom bi tunusa ca tunus li qiraatil ilmi ngir jàng xam-xam wa tadrisihi ak jàngale ko walqiyaami bi amri diini ak taxawee mbiru diine ji wa tadrisihi ak jàngale ko bayna qawsayni ndax am na ci ñaari am na ci nusxa yu jumla ji nekkut walqiyaami bi amri diini wa tadrisihi aha digam jumla la lëf la ci jumla ji boobu wa nafada daaran wa masjida zaytuna lil qiraati wa nafada lahu mu wéyalal ko daaran kër waaw jox ko kër wa masjida zaytunati ak masjidu zaytuna xam nga ne zaytuna bokk na ci université yi gën a mëg ci àddunay lislaam ci njëkk ak ci mucc ci li jiitu ak ci léegi muy euh, jàngu boo xam ne li fa jaar ci ay boromi xam-xam kenn xamul nañu toll wur ba nag ba mu xamee mbiru Cheikh Seydi Ahmed Tidiane ci xam-xam bu yaatu kaar kaar mu bañ occasion jàpp ko téye ko ca Tuunus ngir ñu jëriñoo mbiram raw ko mu daldi ko defal proposition bu rëy bi waaw dinañ la jox foo dëkk jox la kër nga jiite université bi di fi jàngale wa ayyana lahu teg ca mu ràññaleel ko murattaban payoor maanaa li ngeen tuddee salaire aziman bu màgg a màgg a màgg waaw tol ko salaire boo xam ne daal jéggi na dayoo ci màgg xam naa foog na ne nitu zaahir lay jëflanteel waaye Cheikh Tidiane bëtam ëpp na adduna moo tax fa lamma qaraa ba mu jàngee kitaaba lamiiri lettre buur ba masakahu mu téye wa sakata mu noppi waxu dara wa min alxadi ci ëllëg sa tahayya àlla préparé li safari ngir tukki fil bahri ci géej li misra jëm égypte alqaahira kay capitalu égypte di Caire qasidan fekk ma nga yéene it ca yoon wa waxal xajja xaj wa aziman ma nga dogu it ci jàpp ani cheikhi mahmud ci cheikh mahmud mi nga xam ne ku rëy mbir la mahmud bin yazid al kurdi al kurani al iraqi maanaam cheikh tijaani radiallahu anhu mu jotee lettre ba la xam ne fii du fii ndax li ko tax a jóg du loolu mu daldi préparer ca ëllëg sa dugg ci gaal yi jëm Égypte benn pour yéene ajam jamu yéene woon mu mottali ko ñaar jàpp ci kilifa gu mag goog di Seydi Mahmoud al Kurdi wala istislaami ak jébbalu la ñeel ko wa suluuki ak sóobu bi tariqatihi ci yoonam wa seyri ak dox bi siiratihi ci jikkoom ak ci doxam wala bi seyratihi bi siiratihi li ru'yan ngir gént ra'aha goog gis na ko hunaalika foofe ca Tunis gént na fa gis Seydi Mahmoud al Kurdi danañu wax gént ga bu dajeek moom fa ba'atha li dhalika al waliyi ca yónnee nag ci waliyu woowu waliyu booba ñu wax leen ne mbiram dafa nëbbu ba du tase kenn ñeenti ñii te kenn ka di Seydi Abdus lay taseeg guddig altine ak guddig ajjuma Cheikh Tidiane yónnee ca moom xadimahu taalibeem boobu di Seydi Abdus Samad wa qaala mu ne ko qul lahu waxal sang bi ne ko inni man Cheikh Tidiane aratu safara namu naa tukki fil bahri ci géej gi li misra jëm misra alqaahira laa ci namu kii capital ba di keer watlub minhu damaana fil bahri sàkkul ma ci moom mu defal ma garanti ci géej gi min kulli ma yaruucu min kulli ma tukke ci lépp loo xam ne yu rawwicu dana jàquloo albaala xel mi wa ma yu shawwishu ak lépp lu dana jaxase alxaala mbir mi maanaam daal bu ma gis dara ci géej gi lu ma naqadi bu ma ca loru na ma defal domaan boobu ndax juboo nag boromam fa saafahu mu dimbale ko ala matlubihi ca càkkuteefam wa qaala lahu mu ne ko qul lahu waxal Cheikh Tidiane ne ko anta yow madmunun ku garanti nga am nga garanti dhahaban cig dem wa iyaaban ak cig dellu fa inda dalika ba garanti waliyu booba ca saasa rek rakiba la war fa inda dalika ca waxtu woowa rakiba la war fil bahri ci géej gi mu tawajihan di aji jublu li misra jëm misra xafidahu wattukallahu yàlla ilaa am balaga ba mu yegg bisalaamati ci jàmm bisalaamati ci mucc wal aafiyati ak ci jàmm li misra al qaahira ba mu yeggee keer fasaala mu laaj aani cheikhi ci sëriñ ba alhumaami alcaalimi borom xam-xam ba al imaami almushaariki kay aji boole annabili ki nga xam ne moo boole yu baax yëpp annabi li kay aji noble al muhaddisi ka nga xam ne boroom xam-xam la bu géeju ci xam-xamu xadis as suufi kay kojug sufiyanke wala sufiyanke ba aljalili bay aji mag dil fikri saaibi boroom xalaat gu jub ga wa zihni saaqibi ak xol ak xel mu ñaw mu mën jam njub ga alfaadilil muniifi kay aji gën al aarafi kay gën a xam azahidi ka gën kay aji dëddu al afiifi kay aji fegu xujjatil islaami di layul islaam wa qudwatil anaami di royu kaayu mindéefi alcaarifi alkabiiri ku xam yàlla ku makka alwaliyi shahiiri waliyu bu siiw ba tawdi almacrifati shaamixi ki nga xam ne mooy montaañu xam yàlla bu kawe ba almutamakkini ay aji am tamkiin jàppandi lool ci xam yàlla ga arraasix kay aji sax alkaamilil irfaani kay aji mët ci xam wal ittibaaci ak topp yoonu yonentoog ña ko toppoon sallallahu alayhi wa sallam almuusili kay jàpp ci loxo jaam yi di leen jotale ci seen borom almurabbi kay yar ruuxi annafaaci kay jëriñaakoon abil fadaili baayu ngëneel yi kookoy kan sayidi sama sang ba mahmudinil kurdiyil misri yi kay kojug misra daaran ci kër wa qaraaran ak ci saxwaay al iraaqi kay ko jóg iraaq aslan ci cosaan wa manshaan ak sosuwaay misra la dëkkoon waaye iraaq la soso radiyallahu taala anhu wa afaada alayna min barakaatihi amin seydi mahmud al kurdi mahmud doomi yazid al kurdi al kurani al iraaqi bokkoon ci ñi gën a ci xam-xamu tasawuf ci jamono ma nga juddoo ca Saqis ca bilaadi Kuraan fa juddu rekk ci ndawam bakkanam miin jaamu yàlla ak sonn jëm ci lu neex yàlla aliha nuska wal ibaadata wal xalwata taflan wa hakada nujabau ba mu amee fukki at juróom-ñett nag la tuxu ñëw qaahira fa la dajee ak alcheikh alxifnaawi wala alxifni danañ wax xifnaawi danañ wax xifni muy chamsuddin mohammad ibnu salim ibni ahmed alxifni wala alxifnaawi mu jàpp ci moom dib taalibem gannaaw ga mu jàpp ci sëriñu sëriñam di sayidi mustafa al bakri li yusbixa min abrazi aclaami tariqati alxalwatiya xiina dak booba nag la nekk ci ñuy la bokk ci ñi gën a màgg gën a fës ci njiit tariqa alxalwati rawatina ci mujj xarnu fukk ak ñaar am na ay taalif yu mu bind bokk na ca risalatu suluki li abna il muluk boo xam ne dana tàbbi ci juróom benni kararis ci jàngale suluk rawatina di digal doomi buur yi ñu dugg ca ndax e, buur doomam bew yomb na lool mook sëriñ aha ndax dee ñu ne nee ñu sëriñ boroom xam-xam baat ba miima ca mujj miim nga mooy boroom xam-xam mooy jur malik mooy jur buur ndax boo sonnee ci xam-xam barke ba dafay teral sa njaboot bu ko defee sa njaboot nag ñépp sopp ko ndax yow mu nekk buur xaat su xamul nag na muy doxale ba topp ci sa ginnaaw dafay mujj baatu maliku ba la ca mujj lay jur mooy ka muy ami moom suluukam du baax te bu baaxut du ko mëna def ci doomam doomam dafay yore jukko joo xam ne baat baa nga tàmbalee ca xaraf wa mujj ca meliku muy kaaf kaafir kooku nag di dañ dañee rekk moo tax sàmmikati bëy lay mujj am moom mu ndax moo mujj ca baat ba raa raa u raay su defee nag nga xuloo rek naan sama maama doon lii sama baaye doon nii te yow doo kenn bëgg ñu teg la fa ñu tegoon sa maam ak sa maam maamaat ak sa baay mhm. waaw waaye nag bu yàlla dimbalee sàmm booba mu tumuranke dana tax mu war a mën a yar ku tuddati aalim ndax ma mujj ca baat ba gis nga yëfee dafay wër yàlla nañu yàlla boole ci ñooñ yàlla te saxal ñu boole ci suñ njaboot te saxal leen ci mhm. waaw risalatu suluk li abnail muluk moo bind tamit risala fil xikam bind na lettre risala téere fil xikam mu tuddee ko nasihat al ci taalibeem nee ñu li tax mu bind risalatul xikam dafa gént gis cheikh muhiddin ibn arabi alxatimi ci nelaw mu jox ko caabi ne ko ubbil magasin bi nee na ma yeewu yi fi di wëndeelu ci sama làmmiñ bi waarit gi di rot ci xolam ne na ko bind nee na fu ma daqee waarit gi rekk mu dikkaat ma xam ne lii amrun ilaahi ci la ko bind nee na fi lamxatin yasiratin min gayri takallufin waxtu su néew rekk te sonn ca ndax mu ngi mel ni dañuy eh, dicté xolam muy dicté làmmiñam moom nag mi ngi faatu moom Seydi Muhammad eh, góor gi Mahmadul Kurdi sëriñu Cheikh Tidiane bi radiallahu anhu ñetti fan ci weeru muharram atum mille vingt quinze mille cent quatre-vingt-quinze booba Cheikh Seydi mi ngi am quarante-cinq ans at rekk ca des mu war a gisanteeg yonentu moom Cheikh Tidiane radiallahu anhu ngir mu bàyyiloo ko lu mu jàppoon daal di ko jox tariqa bi ndax ci quarante-sixième année am la tariqa Cheikh Seydi Ahmed Tidiane bii yonentu jox ko di juddu moom Seydi Kurdina bu mu gaañoo nee ñu taalibeem bu ñuy tuddee Suleymaan al moo ko sang ñu ko jullee ca jaamiul azhar ca Qahira ñu rob ko ca Sahraaw ca wetu sëriñam bu baax ba Seydi Mustapha al Bakri wa demee ci ajaa'ibul aathaari fi taraajum wal axbaar ak ca li Zarkali ak mujamul muallifin dafa fekk mbiru góor gu màgg gii di Sayyidi eh, Mahmoud al Kurdi mu ne falamma warada ba nga xamee ne rot na alayhi ci moom mooy ba yeggee ci moom sayiduna cheikh radiallahu anhu awwala mulaaqaatihi ci njëlbeenu dajeek moom qaala lahu la ko wax ante yow Cheikh Tidiane mahbubun ku ñu sopp nga inda allahi fi dunya wal axira ku ñu sopp fa yàlla nga ci àdduna ak al'axira qaala lahu sayiduna sayiduna cheikh radiallahu anhu ne ko min ayna laka hada foo jëlee lii noo ko xamee qaala lahu min allah ci yàlla laa ko jëlee sama boroom ma ko xamal fa qaala lahu sayiduna radiallahu anhu Cheikh Tidiane ko raaytuka wa ana bi Tuunus gis naa la fekk maa ngi Tuunus fa qultu laka ma la inni nuxaasu eh, inni nuxaasun kullu dhati man daal përëm la sama jëmm ji yëpp përëm la qulta li nga ne ma huwa kadhalika wax nga dëkk wa ana man aqlibu dana jàllar bi nuxaasaka sa përëm dahaban muy wurus mooy ni nga nekkee aami yu dinaa fexe ba loolu dañ nga nekk euh, aarif billahi tabaraka wa taala waaw ci ci zaahir kat ndax ci baatin mooy imaamul awliya te dañ ci xam dara fa lamma qassaha alayhi ba mu ko nettalee gént ga qaala lahu radiallahu anhu huwa gént googu kama raayta ni nga ko gisee la summa qaala lahu baada ayaamin mu laaj ko gannaaw ay bés maa matlabuka luy sa càkkutéef yow Cheikh Tidiane qaala lahu Cheikh Tidiane ne ko matlabi sama càkkutéef alqutbaaniyatul uzma mooy qutbaaniya ga gën a màgg ak rëy bët kaar qaala lahu waaye imaam kurdi ne ko laka aktharu minha moo ne dee li nga am li la yàlla dencal sa maqaama ëpp na qutbaaniyatul uzma qaala lahu alayka mu ne ko warlul nga ma ko qaala lahu naam mu daldi ko wax ne ko waaw fa axbarahu radiallahu anhu an nafsihi ci la xabaare boppam Cheikh Tidiane nag moom mooy kan wa ma waqaa lahu ak li ko fi siyaxatihi ci tourisme bu spirituel ci doxam jëm ci yàlla wa sababi mulaqaatihi ak sababu dajee gim dajee maa cheikhihi ànd ak sëriñam alxifni chamsuddin mohammad bnu salim bni ahmed alxifni alshafii al azhari cheikhul islaami bi diyaari almisriya borom taalif yi di thamara albahiya fi asmaai alsaxaaba albadriya alsaxaabati albadriya ak xaashiya ba mu bind ala aljaamici nga ak yeneen bind nan la dajeeg sëriñam boobu di cheikh alxifnaawi wala alxifni bi faatu jamonoy eh, atum 1181 boobu cheikh tidiane ngi am fanweeri at ak benn wax na ko nan la dajeeg moom wa cheikhi cheikhihi ak sëriñu sëriñam al cheikh maulana moustapha al bakri al siddiqi muy moustapha ibni kamaliddin ibni ali al bakri bokk ci way magi e, tasawuf ci jamonoom ku bëri ay taalif la moom nag mi ngi faatu mille cent soixante-deux maanaam booba Cheikh Tidiane fukki at ak ñaar rekk la am aha xoolal ci al wax ko mbam daal mbiram ak ni mu tasee góor yàlla yu màgg yi radiyallahu taala anhum ajmaina bu jógee fii nag danañu wax préparation Cheikh Tidiane ngir continuer dem Makka ak lenn lum waxanteeg sëriñam bi di Seydi Mahmoud al Kurdi ak yi war a xew ci yoon wa bu àggee Makka bu àggee Medina ak bu dellusee Misra ngir lu yooyu ci détail ñu ngi leen di jox daje alxames ji di ñëw bu yàlla atti dund yal na yàlla atti dund yaa rabbi hada wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa ala alihi xaqa qadrihi wa miqdaarihi alazimi amin Uh,